dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi safoo di seetaan ba SN TV dal leen ak jàmm ci ay xibaar gannaaw ba nga xamante ne nii rek journaliste bi le di wuyoo ci turu Pape Ndiaye nekk foofee ca Walf Fadjri gannaaw kàddu yi nga xamante ne nii rek yëkkati woon na ko jëmale ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko nii rek bi lépp dossier dafa daal di vide maanaam kenn war ko renvoi ca chambre criminelle gannaaw kàddu yooyee nag waa sûreté urbaine taxoon ñu woolu ko moom mi le nag ci suba daal dinañu koy mujjutee jamono jile mi ngi en garde à vue foofee la ñu koy toppee nag moo di dafa daal di joxe ay xibaar yoo xamante ne nii rek wérul jëm ci bilépp dossier bu ñu sukkandikoo ci avocat bile di wuyoo ci turu maître Moussa Jile moom mii di Pape Ndiaye Walf mi ngi en garde à vue dañu ko daal di euh, téye foofu bu ñu jugee ci les xibaar dañuy dem ci kële di Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ne nii rek ab communiqué wàcc na depuis ci suba jëm ci euh, dañu ko daal di tere rek ngir mu jullee foofee ca cité religieuse bu Kaolack gannaaw ba nga xamante ne nii rek loolee wàcc na euh, patriotes yi am nañu reconnaissance daal di dugg ci li nga xamante ne ni rek moo di réseaux sociaux yi les partis Pastef Ousmane Sonko daal di réagir fédéli suñu kóllëre jëm ci kër diine boobee di cité religieuse nekk foofee ca Kaolack mbokk ñu doon teewlu ci Buzz SN TV file la ñuy ndar képpe yi lay jotaayu xibaar di leen jox dig daje ci kanam incha allah ak yeneen i vidéo jëm ci ay information